Bienvenue sur Salam Vision. yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismi auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilumi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman auzu bismillah inna wali yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa internet yi nga xamante ne yéen a suivre Salam Vision mbégte la ñu am tey li koy sabab itam mooy fii nga xam ne fii lañ ñëw ak ki nga xam ne moom lañ seet si tey duñu ko présenté ndax àdduna wërngal këpp xam nañ ko à travers la rajo leader Safir FM TV bu Ndella Madior Diouf nga xamante ni fa la nekkoon wax dëgg yàlla ñu jaar fa mu liggéey fa liggéey bu mucc ay àdduna war nga këpp di ko xëccoo waaye tey ñu fekk ko fi nga xam ne yooyu dëkkuwaayam la fii ci benn dëkk ñaari gaar ñu gën ko xam ci Thiès kiñ fi sekk si tey te ma leen xam na ko mooy Alaaji Demba ñu gën ko xam ci Kanka Moussa Alaaji Demba ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar waaye ñu ngi lay dalal ci biir jotaayu xam-xam bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro bëgg waxtaan ak yow lenn ci xam-xam yi xam ne suñu borom jagleel na la ko nga di ci dimbali àdduna wër nga këpp loo xamante ni li wolof di faral di wax naan tungu ne du teew ñuy nataal suñu fekkee moo ñu tax ñuy wax kon ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ci biir jotaay bi macha allah rabbi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Baye si Sylla. Mm-hmm. gën ko xamee Samir. sama xarit. <laughs> macha allah. <laughs> sama doom loolu yàgg nañu dégg. wallaay ndeysaan. def naa ren def nañu di ans man yow suuf jiw. douze ans. waaw dix ans wala douze ans. douze ans voilà. deux mille dix mhm. kon xam nga loolu benn fan yàlla na nu yàlla suñu borom def loolu mu yokk. allahumma min. te xéewal bi saawan baaba. allahumma min yaa rabbil alamin. ñaan si yàlla mhm. de. ñu tàmbali si bismillahi rahmaani eggale si alhamdulilah rabbil alamin di nuyu képp ku ñuy seetaan si mm-hmm. internet bi si mm-hmm. wàllu facebook bi mm-hmm. ba ci youtube bi si tiktok ba ci instagram di leen ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ñu seetaan si jàmm ak salaam ñu déglu si jàmm ak salaam di nuyu nag euh, kilifa diine yi ak kilifa aada yi. Mhm. kilifa cosaan yi. ñoom tamit di leen ñaanal ñi xamante ne dañuy dund. Mhm. yàlla na yokk seen fan. allahumma wéral seen fan. amiin yaa seen cër. di làkku tamit yàlla suñu borom xaar leen ajan. yokk seen leer taar suñu seen barke. allahumma amiin yaa rabbal nuyu tamit euh, ki nga xamante ne sama doom baay bi nga àndal. mooy mhm. Touré Malick Mori. ndeysaan moom it mu ngi si technique bi ñu ngi koy ziar baax a baax. macha allah di ak salaam di ñaan nag euh, si réew mi. yàlla di ci teg loxoom saa su ne. ñu may sutura. Mm-hmm. may ñu wér. Mm-hmm. ak wérle. def si réew mi jàmm. Mm-hmm. def si réew mi salaam yàlla sàmmal ñi réew mi mhm. su defee yàlla may ñëpp jàmm salaam ubbi buntu wërsëg yi képp ku tawat yàlla na ko yàlla suñu borom mhm. saafara képp ku am njàkkar yàlla yàlla suñu borom defal ko njàkkar bi dëñ yàlla def si kër yi xéewal saawaan baawa ñu ngi demal aussi weeru ramadan mhm. saaru ramadan di ñaan si yàlla tamit mu doon ramadan mu barak bu ànd ak wér-gi-yaram jàmm salaam xéewal si weeru koor moom boo wooree rek yàlla suñu borom mu ne maa koy fayal sama bopp. Mm-hmm. kenn ku ne ñu ngi demal weer bu jar a xëccoo. weer bu jar a ndamoo. Mm-hmm. parce que amuñu lu dul jaamu yàlla. Mm-hmm. amuñu lu dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kooku moom la ñu gëm. moom la ñu roy. te mooy suñu sang. moo wàccee moo tax ñu wàccee alxuraan. kon yàlla na yàlla ma ñu dugg si koor gi. bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilah yàlla yombal dépense yi. may ñëpp tal ko. ba war ko ba war a ndog si jàmm asalaam. jërëjëf Alaaji Demba Touré Kanka Moussa ci ñaan yu am solo yooyu waaye ci nuyoo bi ak ziar bi ñaan tamit laan sama borom defal ñu ci dégg defal ñu ci topp waaye nangul ñu mboolem ñaan yi nga xamante ni ñaan ko ndax wax naa ko surtout wàlliwu nga doomu wàlliwu nga macha allah rabbi ñu ñaan sama borom gën laa taxawu doole guddal sa fan doole wéral say cër mboolem yéene yi nga xamante ni naalal nga ko askan wi sama borom defal la ci lu kawe sa ñot tañu bokk te fekke ko incha allah rabbi àdduna xëy na mën nañ laa bañ a xam waaye tey man xam naa la mm-hmm. am naa lu ma xam ci yow am naa loo xamante ni tam ni ma ko waxee sànq tungu ne du teew ñuy nataal fekkee moo tax ñu sañ ko waa tey di wax ndax man ne naa kenn jox joxuma lem kenn deful ci samay poste dara wallaahi te wa ma shayib naa ilaa bi ma alim li may wax lu ma wóor lay doon lu ma xam lay doon lu ma fekkee lay doon ma fekkee ci lu bare bare ci sa dund mm-hmm. tey am na ci loo xam ne dama bëgg nga wax ko àdduna ñu xam ko mm-hmm. xëy na man xam naa ko kan mooy Kanka Moussa lu waral turu Kanka Moussa bi. ak Kanka Moussa xam-xam bi mu yor gannaaw bi mu doonee ba noppi fan la ko gëstu. Mm-hmm. xam nga baytaal la. Mm-hmm. li may mm-hmm. xam xale mun na ko for. mag mun na ko for. kon xam-xam dëkkul la. dafa nekk la xamante ni mbir suñu borom la jagle suñu borom la. te aussi lu nëbbu la. la. di nga jur sa doom saa yàlla def si moom li nga xamante ni yow mii ko ko jur mhm. nekkul si yow kon xam-xam mbir suñu borom la mhm. lu nëbb la mhm. yàlla na moo koy def si jaam bi nga bëgg nga bañ ko su bis bi jotee rek foo yàlla suñu borom génne ko si yow mbaa nga génnee ko kon loolu euh, kenn moomu yàlla rek moo xam ne mooy def si jaamam bi lu ko neex mooy jagle si jaamam bi lu ko neex kon xam-xam moom mbir suñu boroom la. Mm-hmm. moo koy wàcc ku mu neex. Mm-hmm. mooy def si ku ko neex ak ku ko yelloo. Mm-hmm. ak xamante ni jagle suñu borom la daal. kon nag suñu borom. moo moo ñu ko may. Mm-hmm. def ñu ko si ñun. Mm-hmm. di ko si sant di ko gërëm. Mm-hmm. di ci dimbali doomu aadama yi. fànn bu ne. ci soxla bu ne. te ci kaw nag mu doon lu baax. ak lu yàlla bëgg. ak lu yàlla santaane. lépp lu yàlla bëggul nag. ànd ñu si xamuñu ko. mënuñu si dara te jéemuñu ko. lépp lu yàlla santaane si wàllu ñaan. ci wàllu xam-xam. si wàllu dimbali doomu aadama. ah dañuy xaar suñu tànk tubéy. daal di taxaw ci. kon li nga wax rek moo am solo. Euh, monde bi amul ku ñu xamul ba amul ku ñu dëggul partout daal moom mm-hmm. mm-hmm. Afrique Europe tout monde bi yëpp daal macha allah ku ñu xamul tamit dëgg nañu parce que c'est la nekk première fois ñu def wàllu mm-hmm. wala internet wala rajo déedéet loolu benn du ñaar kon xame bi ñu too wax ñëpp xam nañ moonte nag ku ñu xamul tamit dëgg na turu bi wala gis na jëmm bi ku ñu def jëflante tamit encore am nañu bari jëflante nañ ñoom xam nga ñaan wax naa la jagle suñu borom la mhm. doomu adama dafay yaakaar mhm. ànd ak li xamante ni ngëm-ngëm mhm. ànd ak li xamante ni lu yàlla suñu borom santaane nga ñaanal doomu adama bi soxla bu munta doon parce que moo xam ban soxla la bëgg kii dina ñëw mu ne li laa ma kii dina ñëw mu ne li seetal parce que man naka jëkki moom ku munta doon balaa ma lay jox sangat foo ma seet ba pare d'abord ma xam lan moo waral lu nekk si yow. Mhm. lan moo waral gàllankoor yi. Mhm. wala lan moo waral tam aussi soxla bi. Mhm. su ma paree ma ne man de lii laa gis. borom moom su paree man ah kat wax dëgg loolu laa bëggoon xam loolu laa bëggoon gis loolu moo tax ma doon gis samay mbir. borom moom su fekkee soxla na ay ñaan. ngeen waxtaan ba déggoo. su defee ngeen jublu si ngeen def ko yàlla suñu borom tamit daal di ànd ci. bu ci àndee nag aussi. aaj bi faju ñun nag duñ ko mbubboo mm-hmm. duñ ko ndammoo mm-hmm. bu yàlla faje aaju jaam bi mm-hmm. ñu xam ne yàlla dañ koy dolli sant ko parce que da koy ñaan mu nangu da koy ñaan du nangu kon su fekkee nangu ne dañ koy sant su fekkee nangu tam ñu xam ne yàlla suñu borom moo ko nangul parce que nit mënulul boppam dara xamulul boppam dara boo tëddee guddi am nga yaakaar di nga yeew mm-hmm. man yàlla moo wax ma mm-hmm. ndax di nga yeew wala doo yeew wante am nga yaakaar di nga kon ñaan tamit yaakaar la mm-hmm. yaakaar bi dafay ànd ak ngëm-ngëm ak doylu bon soo gisee da dëgg ñu ne eh, dem naa fu ne wóor naa fu ne gisuma dara eh, daal ñii ñëpp dañuy naxaa déedéet kenn mënul nax dem ñaan wax naa la jagle suñu borom la nit di nga ñaanal nit saa nga jox mu tàng mu sakk mu tàng mbaa mu sang mbaa mu takk sa lammin am ijaaba rek yàlla ne amin ñaan bi sotti mhm. su defee boo ko joxoon mu sangu mu ne bi mu sangoo garab bi de baaxoon na mhm. fekk nag yéene bi nga ko njëkkoon yéene parce que lépp mooy yéene mhm. bi nga njëkkoon yéene si xol nga ñaanu yàlla yàlla na def loolu wala yàlla na fànk loolu bu dee gàllankoor kon su defee affaire bi antu nga naan kan li ma sangoo mbaa li ma takk la d'accord takk baax na sangatu baax na suuru baax na ñaan moom mooy li ma la rek parce que da nga koy njëkkee si lammin bi mhm. ak yéene bi ak xol bi mhm. parce que donn bu leeree rek bu leeree rek mhm. mu set wicc nga xam ne daal lépp lu bon nekku ci ki ñaan nekku ci rambaaj nekku ci finis ki ñaan nekku ci loo tàllal suñu borom nga ñaan ko moom da ci dafa sutura suturaal parce ñaan sutura rek la yàlla moo lay suturaal nga ñaan parce que luy am ëllëg ak luy xew ëllëg yàlla def moo ko xam mhm. wante jar leen ay yenn jaamam yi lu mhm. ñëw ëllëg mu xamal leen ko mhm. moo waral nga seetal nga ne ko lii dina am lii dina kii lii dina def nii lii dina def laa wala lii def lii dina def yàlla nag mooy xool jagle bi yow miy jaam bi mu sangu la ci sutura loolu antu wala mu sangu la ci sutura loolu fànk bu dee lu safar ngeen ahaadi diw moom dimbale fekk lépp yàlla la parce que nit bu ñu def dara tànk yàlla andu si lu yàlla ànd nag day sotti day am borom. day ñaan saa su ne. Hmm. bu doomu aadama di ñëw rek bu dee ñaan nga bëgg. Hmm. bu dee seet nga bëgg boo ñu wooyee. Hmm. ñu seet la d' abord man du ma ñaan leen tànk seetu foo ma seet ma xam lan la. waaw des fois sax nga dégg mu laa bëggoon si ma dégg. boo ma waxee sa soxla kon amul sens. dama jox sa at sa tur ak sa sant. ma seetal la ma wax la ma gis. ak li ma xam ak lu mu yàlla wane ñu doog a jublu si. wala lu nga dem kay li laa bëggoon nga ñaanal li laa bëggoon ñaanal ñaanal la. parce que en yàgg nañu. Mhm. xam nga xam naa. Mhm. xëy sama doom baay moom moom mhm. tey laa ko gis. man de euh, xam naa moom dina xam. kan yàlla yàlla baax na yàlla baax na <laughs> <laughs> yàlla baax mais foofu laa bëggoon na ñëw Alaaji euh, Demba Touré. Euh, parce que damay gis ci wàllu seet. nit da lay woo téléphone. nga ne ko jox ma sa tur ak sa sant. ak say at ji nga am. ba pare da di ko wax loo xamante ne day mel ni yow dañ la ubbil moom. dundam man man taal su ma neexee sax. yoo xam nga ma ma ma jël sa tur wala sa. wallaay loolu laa dinañ ci mën naa jàkkaarloo nit rek ma wax la li ak lii. chaque jour ma wax loolu nit. Mhm. mooy ko nekk Europe mooy ko nekk fii. Mhm. parce que li ma la wax xam-xam si dënn bi la. ak bopp bi la. du bu mag mag. du caaxaan pour pour mbooloo déedéet. xam bi la ak bopp bi la. ak li ma la sànq rek xol bi. Mhm. xanaa amoo si taala kuy ñaan. ku nit ñi yaakaar. warul soxor. xam-xam. soxor boo soxoree rek kon xam. wallaahi wax nga borom xam-xam. day am yërmande. day oyof day yooyu xam nu ko wax day wàccee boppam oyof wante soo diisee mhm. wala nga jéem jaay mbir rek mhm. kon boobu bokk parce que yàlla borom dara mu amul li xamante ci lu ci rëy ba amul dara mu xamante lu ci jafe kon mhm. ko yàlla ngay ñaan yàlla ngay yaakaar kon yow sa xol bi donc laabal bu mu set wit nga fork bu mu set wit li nga fóote sa yére bu tilimee ni noonu nga fóote sa xol boo ñaanee yàlla day nangu parce que borom xam-xam bu sokoree rek def safara te soxor jugul kenn nangu mm. du borom xam-xam sax rawatina ku yor xam-xam mm-hmm. ak ku ñu yaakaar mm-hmm. nga yaakaar yàlla mm-hmm. mun na mun nga wax ñaan mu la mën a sant mu nangu mun nga wax bañ a nangu boo soxoree rek kon loolu bokkatu si wàllu nit ku baax nit ku baax xolam day laab loolu koy ñaanal ak ku yaakaar si yow ak koo xam ak koo xamul koo gis def ko saa moo la gën soo defee nga noppaliku ko ñëw wax la soxlam wax li nga xam wax ko li nga xam nga man yàgg nañ mën a yow man xam nga sama sangar mooy xam nga ko bu baax. xam nga ko <laughs> man dinaa dinaa ci ñëw ñoom. poudre fetal ak yooyu noonu man sama sangar xam nga ko man <laughs> mhm. ñuy naan. Mhm. dégg nga lu ñuy sangu. Mhm. lu ñuy takk. lu ñuy suuroo lu ñuy wirdu. loolu moom. sa yëf la moom waaw wante comme jox nit mu mu naan. mbaa comme ren. wala comme yeneen sangar yeneen feebar bi. man moom yoo xam nga sama mbir moom. dëgg dama mun si li yàlla jégleel. ma yam si li ma yàlla jox. macha allah saa su ne yàlla mu ma ci defal. Euh, sutura mhm. defal ma ci tamit ci ndam. Mhm. bon ñaanal ñëpp gis. Mhm. déedéet mënul nekk. di nga ñaanal ki mu gis. ñaanal ki du gis. su gisul tamit xam ne yàlla moo leen boolewul. parce que ñaan rawaan yi ñooy dëggoo. yàlla tudd. mu antu mu am. mooy war a nga ne demoon naa si diw de. ma ñaanalee baaxoon na. fekk yàlla moo bindoon loolu. jiital suñu judd mm-hmm. mu ne bis dinañu di nga dem si di wax sa soxla mm-hmm. mu ñaanal la soxla bi am faju boo gisee nit ñi jëddam di def lu ne mm-hmm. di ñaan lu di pour yaakaar rek la yow sax mën ngaa xëy julli suba nga tàllal sa loxo parce que moo ko nga tàllal sa loxo ñaanal sa bopp ñaanal lépp doomu adama ñaan kenn kenn du julli ñaanal boppam. yow kese. Mm-hmm. déedéet ngay ñaanal ñëpp. Mm-hmm. ñaanal boppam ñaanal ñëpp. Mm-hmm. parce que li ma la saa kon boo jullee. dangay ngay tallal loxo ñaanal bépp doomu aadama. yal na yàlla faj aaju bi. yal na defal ñëpp jàmm. yal na may ñëpp sutura. lu gën a am solo sutura. boo amee sutura taala. adduna. àllaaxira rek borom moom raw na mucc. sutura mooy lépp. des fois ñi dina yaakaar yow dara. fekk loolu amul. fekk sutura ak sax ngay àndal. kon doomu aadama yi. bu nit ñëwee. Mhm. wax la soxlam da nga koy suturaal. Mhm. nga mun ko munoo ko nga ne kat aha kat nii la demee. Mhm. wala nii la demee ne kat munuma xonte bu ko di weer. bu ko di xawi sutura. lu tardal nit ñi léegi xawi sutura. weer nit wala soxor. wala waxante lu dul dëgg. wala sosalante wala yeneen lu dul jàmm. loolu mooy tardal. ak surtout ma tamit tooñ bindeef doomu aadama comme yow mhm. tekki sa daram nga xamante ne leer na na li li nga tasi moom dara amul mhm. loolu alaa xulli alin yàlla dalay nattu mhm. te danga koy gis kon doomu aadama li ma sànq dina xorom laab li nga yéene sa bopp nga yéene sa morom li nga ko ñu def la ko bëggoo def morom li nga xamante ne bëggoo ñu takk sa ko bëgg def sa morom man da jamono bi li ma gis léegi xam man toog naa deux ans génn man du ma gaaw a génn booguma def sax du sotti dé man li xam nga sama biir pour ma génn yombul. kay wax naa ba sonn fi mu ne pour jot ci yow. <laughs> <laughs> moo tax fekk si la Thiès tey. kon li ngay wax loo xam nga li wax loo yombul. Mhm. parce que man du du mu n'importe quoi daal. Mhm. comme kaay leen maa ngi nii. Mhm. man du ma zaari. man lépp lu may def day àndam biir suñu borom. ànd ak tamit. ma yaakaar suñu borom. Mhm. ànd ak tamit li ma yéene sama bopp yéene ko ñëpp. Mhm. su ma yoroon tey jii ñaari fukki junni mun naa ko jël joxe ko. incha allah dérange mu dara parce boo amee del joxe. Mhm. boo munee del dimbali. kon boo xamee tamit del dimbali. del jàppale nit. surtout waaw mm-hmm. parce que yow li ngay def mm-hmm. li ngay ñaan mm-hmm. yow yoroo ko yàlla ngay yaakaar moom nga koy ñaan moom moom ngay ñaan mu jox la moom mooy jox la mooy joxe mooy nangu kon doomu aadama bi su ñëwee wax la <laughs> soxlaam wax la soxlaam <laughs> uh-huh. yow tamit aussi jàppali ko xëy na nag lu ñuy wax rek euh, nitu moom bu dee ñaan kenn mënu ko fay parce que ñaan dafa nekk li xamante ni lu am solo la. Mhm. lu riis la. Mhm. lu doomu aadama di war a fonk. Mhm. war fonk respecté ko. surtout nga xam ne li nga yor lu riis lu seer yombul de. ñaan. ñaan yombul bàyyi daal. dëgg la ñu bari nag xamuñu loolu. parce que ñaan ma li ma sant rek. bu la ko yàlla jagle yow sa bopp war nga xam ne lii. yombul dëgg la fi nit ñi di nelaw. xam naa la saa borom xam-xam. waru bëri nelaw guddi. déedéet. bu suuf seddee bàyyi taala loo tàllal sa loxo yow sa bopp sax même boo nekkul sëriñ sax mm-hmm. loo tàllal sa bopp nga ñaan suñu borom dala koy nangu mm-hmm. mooy mm-hmm. parce que xaaj guddi boo tëbbee ma rawaan day tëdd dëgg la parce que rawaan mooy tax moom mooy bu dee lu bu dee lu la su defee boo tëddee guddi rawaan soo tëddee guddi rawaan bi bu fekkee da nga tëdd guddi rawaan bi tëdd yow musuloo munoo ñaanal si boppam aar sa bopp si kudd ji kon lu waay def rek day kukk sa kaw mbaa da lay dal mhm. waaw moo tax en boo xoolee suñu mag ñi baax ñi daawuñ si kaw lal lu la ëpp dañuy lal si suuf mhm. ba ci man mi noonu lay def mhm. lal sa matala suuf wala wàcc sama basan si suñu tënt loolu tamit dafa nekk loo xamante ni lu baax léegi nag lu ñu yàqal ñun ah ah ah gëmuma lii lii daal kiiwuma lii nit loo gëmul am nga ci dara gëmmoo keneen lu mu gëm bàyyi ko lu mu gëm surtout man du ma xëy ma fekk taala ji bugg dara soxla dama xam ne lii kat lu baax la xam ne lii kat lu koy muccal lu koy aar ma koy découragé mhm. loolu nit ku baax du ko def loo gëmul du la jëriñ dara mhm. léegi da ngay na est que mën na <laughs> loolu a dugg tuuti mhm. parce que da ngay est-ce que nit ki mu ki nit nit ku ñëw bëggal bëgg ko bu la bu li muy ut si est-ce que réellement fi ne ñaan gi mën nga koo ñaanal lu ko lu ko lu ko lu ko dimbali fi toll parce que ngëm-ngëm ngëm-ngëm taal. Mhm. côté bu ne nag fànn bu ne. muy mhm. lépp xam nga tey yooyu leen déplacé Dakar indi leen ba fii. Mhm. jaamu yàlla parce que liggéey la. kon ngëm-ngëm la. nit loo gëmul du la jëriñ daal. lu ñu tardal. ñàkk a wóolu ak ñàkk gëm. dañuy am dundee yaakaar de. wante dañu gëm. xel ñaar. day baax du baax kon du baax. parce que nit soo gëmee rek. bàyyi lépp si yàlla. parce que yàlla moo ko wax. war ma ne nit nit yaakaar dara. di dina am. nga gëm ko yàlla ànd ci mu ànd bu fekkee na gëmoo ko mhm. du antu kon ngëm-ngëm mooy lépp d'abord parce que même bay jaamu yàlla da ngay gëm mhm. moo tax ngay julli mhm. moo tax ngay woor moo lépp loo gëmul du la jëriñ dara bu ñu tibbee jox la yàlla ci day am barke parce que wax naa lu yàlla àndul moom <laughs> wax parce que lépp tam fi nit moom dafay gëm suñu borom ba noppi doo mën a gëm leneen donc boo gëmul yàlla wóolu woo ko fi mu toll nii kon def naa ne mënoo gëm leneen wala ngay wóolu leneen ci àdduna moo gis na tamit wàllu seet kenn Moussa yàlla da ko cee may seet ni nga ko waxee léegi dara nit dalay jox âge am jox la turam ak santam nga seetal ko waaye da ngay jàkkaarloog nit du la wax dara nga di ko seetal kon loolu am na loo xam ne teg naa ci sama bët du benn du ñaar du ñett ba ci sama jëmm ji man am dof nga ko ak man ma gis ci wàllu faru rab ak coro rab kanka Moussa am lu ko ci yàlla may ndax tey jii nee naa bu ñuy xool tey ji sa carnet d'adresse sa téléphone sa agenda li ci ëpp ay jigéen lañ ku ci nekk faru rab moo ko jàppoon nga defal ko ay sangat mm-hmm. ñaanal ko suñu borom dàqale ko moom ba mu nekk ci ay loxo yu mucc ay tey jii di sëy nekk ci néegu sëyam mm-hmm. wala mu tukki wala yu mel noonu mm-hmm. secret bi lan la dëggantaan foofu tam ci wàllu faru rab ak coro rab waaw bàyyi taala bu demee ko ma ci laajee dinaa sawar di ko wax man sama dëkk maam sama dëkk maam ñu dëkk dëggantaan ñoom amoon na ay jamono temps maam laa wax de fan la dëkk may Mali. Mali ñuy wax Sadio La. Sadio La ñuy wax Boroxon. Boroxon loolu digg digg Mali. àll bu ñuul kuk foofu noonu. Mhm. ci biir suuf ñoom la ci ëpp lañ doon dëkk. ok li laa lay comme nga mhm. naan zaar suuf mhm. pour ça nga gis nit que. ndax la comme lu leen yàlla may si côté xam-xam bu ñuul. lu yàlla may si côté wàllu alxuraan. foofu xale bu am dix ans. xale bu am dix ans. Mm-hmm. bu ne bul jaar. Mm-hmm. bul jaar bu ne toogal toogal. Mm-hmm. mooy lu ma sàng rek ma ne la man euh, du ma ndamoo du ma wanewu du ma tiitaru. à chaque fois damay wàcc sama bopp. war a mel nga naan comme comme xam rek ma la sàng rek. rek euh, nga gis ma rek. nga ne ah kii daal. <laughs> du dara voilà du dara nga xeeb ko. parce yàlla su moo ne. doomu aadama bi soo ko xeebee rek man nga xeeb mm-hmm. tey dama gis taal ci lam xeeb mm-hmm. gis sama doom baay bi turé mi mu xeeb mm-hmm. kon man xeeb naa yàlla xeeb naa sama bopp te nit boo xeebee nit yàlla nga xeeb yàlla moo ëpp naa kon doomu aadama bu ne warul nit parce que yàlla nee soo xeebee bindeef rek man mi maa ko sakk maa ko bind kon man nga xeeb kon nit ñi dañuy di war jiital li ma la sant rek ngëm-ngëm ngëm-ngëm parce xam nga taala yàlla moo ñu bind mhm. man lépp lu mu bind xam nga bëri na mhm. man de doomu aadama la gën a bëgg la gën a fonk ndax la xel moo tax mhm. parce que xel moo tax mu gën ñu fonk ñu bugg ñu suturaal ñu kon nit su nee nee diw lii ak lii bu ko wédd waxal gisuma wala xawma nga maandu ko jàpp sa ngam parce farolab corolab ak cat bët moo yàkkal ñëpp li bu dee bu góor nga am lu ñuy farolab mën na la tere nga am place. Mhm. mën na la tere nga tukki. Mhm. mën na la tere sa wërsëgu ñëw. Mhm. mën na la tere nga am jabar. léegi nit doo toog ba quarante ans nga yor alal bu dul jeex. ngoro boo ngoro ba baax rek yow yaay découragé wala doo si découragé. wala cat dugg ci du antu. bu dee jigéen aussi noonu. parce que am nga yaa ngi comme comme ni nga wax sànq su côté wàllu jigéen ñi. Mm-hmm. ak góor ñi. Mm-hmm. côté boobu ñëpp a ci yem. Mm-hmm. farorab cororab. képp kuy dund. am nga ko xam nga cororab ak farorab ak rawaan xam nga bokkul. kenn na ko ñëw mu ne ma am na ko ne ma naa boo ko dàqee maa ngi <laughs> dund parce que rawaan moo la ne mooy la soo tëddee guddi. rawaan bi day tëdd. soo jógee mu jóg mooy waral boo jógee. comme ñu xamul mooy rawaan mooy takkandeer nga gisul lu mel ni comme daaru ñu topp sa kanam ni mhm. amoon na suñu mag ñi baax bu njëkk mhm. boobu ay montor amul dara amul sa wax su tisbaar jotee dañuy taxaw jonn nga xool mhm. boo gisee si kanam nga xam moo tax ñu tuddee woon ko àndandoo bi na bu dee timis tamit soo ko gisutul mën ngaa julli xam ne ci quatre heures timis jot na xam ay mbir tegtal la rek comme nga xam ne rawaan dafa am rawaan mooy àndandoo bi comprendre mm-hmm. moom moo lay dimbali lépp lu bëri am na ti taala mm-hmm. mun nañ bañ a sangu bañ a takk mm-hmm. seen rawaan aar leen ba faw lu leen waay fexal lu bon lu leen waay diblu lu bon rawaan bi day baare kopp kaw kooku nga naan ji def maa liggéey fekk liggéey wala ku ñu mënul liggéey amul mhm. ku liggéey mënul jàpp amul mhm. xanaa nga bañ a dund man soo dund bañ a jox la turu rek nga nekk doomu aadama mhm. liggéey ku mënul jàpp amul lu lay muccal mooy mooy lu war nga gëm te sa jamono bi da ngay takk ba dëgër sangu ba weex tal <laughs> man de su ma xëy dinaa sangu ñaari tuwo ñaari paan takk ba kii ba digg bi fees del <laughs> waaw parce lu tax takk gàllaaj gàlloo la ñu wax mm-hmm. gàllaaj gàlloo la mm-hmm. bu fekkee yaram bi amul saafara mm-hmm. amul loo léemu amul loo wédu amul loo raayoo takkee gàllaaj moo lay porté dara nekku ci dëgg la dara nekku ko jubloo ci lu bon lu lay aar ah, lu lay dara léegi la moo tax nit ñi di wax ne loolu bokkaale la fi te toll nii waaw xam nga xam nga xam nga li ma la sànq rek loo gëm gëmul lu keneen gëmul man sama àdduna noonu la lu ma gëm gëm naa ko lu ma gëmul gëmuma lu keneen gëm gëm na ko kon ku ne la ay bokkaale la. Mhm. ku ne ay leneen la. Mhm. kooku ko wétu de. la. Mhm. ak gis-gis man de man de dinaa takk. <laughs> man dinaa takk dinaa. tataali cheikh bu mag nga. ah ilaha illallah Serigne Babacar si <laughs> <laughs> ma gis ma gis Kanka ay cangatam ay muslaayam. poudre fetal daf ci bokk bu baax a baax daf ci am doole. njëriñu poudre fetal la bëggoon nga wax ma tey njëriñam. poudre fetal de taala am na sëriñ yu xam nañ ko. Mhm. xam nañ ko xamuñu ko. Mhm. poudre fetal kese kese boo xam ne secret dafa am secret na. Mhm. xam man soxru man dama doon toog si rajo sax ma wax. maye dara. kon ku lee woote man def naa ko gis naa njëriñ. poudre taala mooy tey. famille bu jubóowul. wala xool nga xam ne kat am na musiba wala balaa bu nar a si famille bi base gi. ñun bambara ñun bambara laa wax de. nga xam secret bi taal ko. dafa am nag bis bi nga koy taal am na of of bi nga koy taal. boo ko taal même borom moom nekkoon ba Mali ba Casamance. xam nañ ne mën na toog ba feneen fii sandi dara foofu mu dugg si kër gi wala si entreprise bi. soo ñaanee nga taal nga taal ko boo kosee almet nga teg ni soo bi lay jàpp. wala ñu ne la dina boyal xal. ngeen ñaan li nga bëgg ñaan sa kër bi tuuf li ci. sotti pour fëteel amul lu mu mënul fànk. amul lu mu mënul mu tëju. defee tëf noonu lay génn bu dee nag ki xamante ni ku ne liggéey liggéey liggéey liggéey ba moom daal daram sottiwul wala mu tukki yàgg loolu dara mënul ant mhm. boo ko amee bu ma mën na nekk foofu sax nga nekk fii nga xam turam ak santam mhm. nga ko def secret bi mhm. def ko ci taal bi bu defee pëf bu dee nekk bitim réew da ngay bàyyi fourne bi nga def noonu da koy bàyyi noonu kenn du ko fay nga bàyyi ko nag ba doomu taal bi nekk doomu gómm dafa am ni ngay waxaat boo waxee foo ko defee da ngay gis affaire bi day dajaloo mel ni comme benn dànk. Hmm. yooyu soo paree dànk boobu moom ngay jël nga dem si côté tefet géej. Hmm. bu dee comme ñun sa dëkk fi amul géej dex la am. Hmm. nga suul ko foofu. munoo ko nga fu mu jublu fu mu nekk xaalis du ko yàq. mun na xëy fi taal tey un million deux millions trois millions du dara day ñëwaat. waaw poudre fajar moom comme ni tamit bëgg la wor. daal leer na la kii kër fi bëgg a wor. kii kër yéen la jàmm. nga bëgg jàmm bi ànd. mooy li ma pour du fete moom fan bu ne mën na ko faje fànn bu ne mën na fànk fànn bu ne mën a indi tamit jàmm maanaam day aar day ubbi day maye def lépp xam nga tey jii am na rab yoo xam ne dañuy xëy rek tëj wërsëg kër gi mhm. yàlla mu mhm. liggéey mhm. diw moo def nii nii diw moo def fekk yàlla xam ne aram bakkaat te bakkaat rek wax lu la wóorul boo jëlee poudre bi képp ko tudd si kër gi bu dëkk si kër gi di yeewoo si kër gi tudd turam nga bëgg ñu déggoo nekk jàmm nga ñaan ba pare nga ñaan pare laa wax nga togg togg comme lu ñuy wax ñebbi euh, ñebbi bu xonk bi mhm. bu dee kilo bu dee liibaar baax na mhm. nga togg bu mu ñor nga raxas cin bi mhm. jël ndox bi am li nga war a wax waaye ba ñëpp tëdd yow mii nekk borom kër gi wala yow mi maire bi rek comme ku yor ku yor kilifa kër gi rek voilà yow si kër gi yëpp paacoo ko si bunt bi poudre bi nag nga teg si ëtt kër gi fourneau bi nga sotti ko ci boo paree nga jël suuf sotti ko ci moom mooy fay xal gisa xale yooyu soo paroon nga teg ko si gaz wala fourneau loolu dul boy <laughs> gis lu muy fayee ci xal bi dootul bay mooy tax kër gi ñëpp dañuy mujj nekk jàmm déggu mooy war nga defaa gis famille jaxasoo xuloo jëkki-jëkki àndaat nekk benn mel ni comme broxon mhm. loolu defal naa ko nit benn bari ñu naa ko njëkk def macha allah benn kër la woon mhm. affaire xëccoo famille affaire ay terrain mhm. benn waaye téye seen terrain rek bañ mu jàpp <laughs> te bi ma defee li may def. ndeysaan moom sax moom mujjee bàyyi automatiquement delloo leen seen terre. est wala suuf. Mhm. ngay jaay terre mu jaaxal. Mhm. wala nga am kër mënul fekkee ba tabax ko. ñun mhm. des fois ñu dina jënd kër du ko tabax. dina jënd kër ko tabax. ndax rab rab kër gi moom moo koy téye. wala yàlla na yàlla baal kenn mën na jaar fa def foofu dara. doo ko xam ba nag kër. boo ko jënd tey dañ ci war a def ñaan balaa nga koy tabax. ñun lakkat. ñu muy jënd kër. Euh, tabax ko. dafa foofu ñaar. Mhm. te aussi boo ci fekkee oftun. Mhm. bu ko bu ko ko dagg bu ko gor. boo fekkee lu ñuy wax euh, siddem. Mhm. bu ko dagg bu ko gor. ak euh, lu ñuy wax mandamaare. mandamaare ñetti garab boo fekkee sa teere. bu ko gor. siddem bi sax boo ko bàyyee foofu. ak oftun bi. nga xool garab bi. su fekkee kër gi dafa nar a am rek xéewal. di gis garab bi day màgg di màgg di màgg di yaatu di yaatu di yaatu. xam ne kër gi naat la. Hmm. waaw. Hmm. xanaa xamoo lépp ay tegtal la. waaw kay <laughs> xanaa xamoo yàlla daram jafewul. déedéet sutura rek. Mhm. ak sekkere rek. suñu la waxee nga naan lu yombali. Mhm. fekk xamoo. macha allah fu ñu fete moom daal suñ ko naree lim njëriñam. du jeex du jeex jërëjëf El Hadj Kanka Moussa Demba Touré macha allah ci leeral bu am solo boobu nee naa leen man li tax ma ñëw jóge Dakar ba Thiès xam naa ko ndax xam naa waa ji ma toogal te namoon naa ko ndax gëjoon naa dégg waxtaan lu mel ni li may wax nii mooy li ma ko tàmbalee rek wa ma shayib naa ilaa maalim naa deful sama poos lu ma amut du ay teg dil wala ay yi xew nii non non non xam naa ko xam na ma nekk damaa nekk njaatigéem doon patron fukki at yàlla mi ngi ci na ko ma doon directeur am. loolu moo tax xam-xam waaw <laughs> macha allah dama nangu bool yi la. <laughs> caméra bi bool yi yàlla bëri na sa tur incha allah dañuy jàppaat beneen yoon rek gën mu ndax nee naa leen poudre fetal daal macha allah ngi doon te niñ ko waxee xam naa ci gi fekkee naa te wax dëgg yàlla nettali bi dàq ci nettali mooy nettali loo fekkee te man fekkee naa wallahi lazim donc dafa doon lu am solo alaaji dem ba ma gis euh, fi ma bëgg ñu duggaat fi mooy ni ma la ko waxee woon léegi ci wàllu gannaaw bi ñu génnee ci wàllu coro rab faru rab pudaru fetal ma gis ci wàllu tukki yàlla may la ci wàllu sëy yàlla yi tamit may la ci wàllu examen yàlla may la ci bëgg ay kayit tamit yàlla may la ci te lépp mooy li may wax rek li ma jaaxal mooy xam naa mooy li nga wax léegi mhm. podaru fetal dafa lu mu mënul a def amul te li may wax nii yëpp benn bu ci nekk fekkee naa doon témoin sama bët may ma nga jëflante ci ak ay doomu aadama am ndam donc loolu tam bëgg naa ñun ñëwaat ci tuuti waaw côté ñaan moom mhm. bu dee ko bëgg tukki mhm. bu dee ko bëgg jëkkër bu dee ko bëgg jabar li ma la sànq rek ñii dañuy tukki seen rab bi. Mm-hmm. téye seen lépp. Mm-hmm. téye seen lépp dëgër. Mm-hmm. maanaam day maa liggéey day maa liggéey fekk kenn liggéey. wala nga nekk fii bëgg a dem. nga déposé visa déposé ba sonn. doo mën a dem. wala ngay jàng. nga war a am comme bac. nga def examen. wala nga def concours. lépp lu sotti. ñu naan ah diw moo liggéey diw ma day def. rab rek rek rek mën na la day téye sa lépp mën nga dem di jàng hmm. des fois mu jékki-jékki sa xel bi mu jaxase ko du xam nga taala nit dina xëy def dara hmm. wala def benn lu warul lu mu warul def hmm. ñu ko kii kat dafa amul yar kii kat dafa fekk xamul seetaane la seetaane su la duggee moo waral nga def lu ñaaw nga wax lu ñaaw mbaa nga wax lu bon su defee nga war a dem jàngi sax loo jàng tamit sa xel bi dara du ci nekk. day mhm. fekk boobu seetaan bi dafa la ëpp doole. nga war a jàng nga concentré doo concentré da ngay gis dem ba école. Mhm. du jàng. waaw wala bu jàngee dara du baax. Mhm. bu jàngee am ay notes yu baax. ñu naan moom jàngul moom fekk na seetaan moo ko ëpp doole. parce que am na ma dina wax la saala taala. tant que yaa ngi jaamu yàlla. tant yaa ngi sell tànk yaa ngi ragal yàlla suñu borom. yàlla du la seetaan. ndeysaan. waaw te aussi di leen gën a ñaax ñoom ñi nga xamante ni dañuy jàng ba nga xamante ni dañuy bëgg ay wut comme bac mm-hmm. wala bëgg def examen mm-hmm. taala doomu aadama bu ne mm-hmm. war a toog dix minutes trente minutes bu dee nga war a jàpp àndoo njàpp baaxul. déedéet ki sa njàpp tànk yaa ngi ànd ak moom. yaa xam da dem jàngi. nga ànd ak njàpp. yaa xam ne da ngay mhm. mhm. liggéey nga ànd ak njàpp. Mhm. yaa xam da ngay dugg oto nga ànd ak njàpp. yàlla dina la mucc lu bëri seetaan bu la naroon yàqal mbaa domine la sax. du la mun a dara. yu bëri xamuñu loolu. dëgg la waaw kon sooy jàng. ngay dem école. da ngaa war a sellal nga war a tamit aussi. jaamu yàlla lu bari. su mhm. tant que yaa ngi jaamu yàlla. Mhm. di ànd ak jàpp di sellal rek. Mhm. di sarake. surtout ma di sarake. gis nga sarak taala. ba dañ ko jàppee. ay fo dañ ko jàppee ay fo wala ay caaxaan. sarak moo gën a gaaw faj aaju. man xam nga ci dara man dama doon toog ma ne la sama sarak balu fëtël la. te aussi moo am. lu ma la jox sarak nga def ko lu ma la waxee. li nga bëggoon alaakulli anin. su yàlla suñu borom bu si ànd day ànd. taal somdel guddi aju mooy yaa koy def ko léegi. waaye jeudi bi def ma ko. ndeysaan waaw boobu tamit. xetal <laughs> oh. la rek. wallaay ndeysaan am mm-hmm. nga xam nga day leeral. Mm-hmm. lu jaaxal doomu aadama. Mm-hmm. nga xam ko nga wax ci sondel. def foo yàlla may la li nga bëgg xam nga xam ko wala li nga bëgg mu fànk mu fànk mm-hmm. waaw moom maa la wax loolu te day mel ni te booy dugg si néeg taal la lumière mm-hmm. seetaan da lay dugg ngay dugg si toilette taal la lumière mm-hmm. seetaan da lay dugg parce que seetaan bëggul lumière comme lam problème bu njàkkaar bi foo ko fayn léegi seetaan mu dugg suñu diggante seetaan bëggul lumière lëndëm la kon nag chaque fois nit même boo dugg si ne war nga taal lumière surtout boo dugg si toilette war nga taal lumière beneen bi taala li nga gis jigéen tey tolla fuñ ko war a takkee mm-hmm. yàlla may ko jekk na mm-hmm. taaru na jongoma na yor na wërsëg wante mm-hmm. nit ñu bëgg takk rek du am parce que des fois wàllu comme ñoom ñu gisee mbaax côté walla jigéen ñi suñu gisee mbaax gis nga xanaa ba dama ko woon benn femme ma ne ko. yow da ëmb rek mu yàqu moom a dégg ma ne ko bi ma ñetti yoon ñu allah daa am ko jaari fi jox jox sama tur ma ne ko barke si nam jëmmi Serigne Babacar Si. man lu mu mënta ko moom barke Serigne Babacar Si. Mhm. ma xamante ni carrément bëgguma di ma xam ne ko barke Serigne Babacar Si. Mhm. ëmb bi ngay am mu yàqu noonu. Mhm. ëmb kenn ñëwul fi wax sa tur. kenn xamul wax xamul xamul sax xam naa la. Mhm. ma ne ko yaa ma gis wax la. Mhm. ma ne ko gis nga boo gisatee mbaax del takk bu mu dëgër. Mhm. nga gas suul. baa nga def ko suuf ba parce que gis nga signal xam nga signal. signal te mu am bi garab mu ngi si moom gis nga tey jii bu fekkee jigéen jigéen gis na baax. Mhm. nga bàyyi ko si perron bi si toilette bi nga dem. Mhm. gis nga tokk tokk deret boobu lu mu ndaw bu ci signal signal lekkee naan. Mhm. c'est fini. allahu akbar mun nga dund ba faatu doo sama dundoo. Seydina am. jëkkër moom tamit waxaale ko. oh. maa la wax loolu. des fois ba moom mooy ñëw jël ko. utiliser ko. góor bu bala wuti keneen wala ëmb boo jël muy tuuru duur nga naan ëmb boo dañ ma liggéey de sama wuti pajak sama néew ne fekk yàlla araam te dañuy jël léegi seen jël baax yooyu noonu di ko sànni ci bale ji dof rek dof dof léegi gel bi gel bi def ci xel def ci xel bàyyi ci rëmmal mu dawal deux mois trois mois mu jël ëmb te saa mu woo ma jëkkër ji woo ñu ma dama laa bëgg euh, sagal teral la defal la teraanga mm-hmm. ma ne ko ah pour la ma ne parce que kii amul foofu demul ak moom mm-hmm. toggal nañ ruwal nañ defal na ko lu ne. Mhm. te man fas laa ko jox fas laa ko jox. Mhm. jox sunguf xam nga fuuf. fuuf fuuf tamit lu mënul faj amul. ndeysaan mën na ko def ko. Mhm. nga def li ma la nga xool. alhamdulilah beneen bi mën na ko mu wutal nenu xam nga nenu kaay. nenu kaay nenu kaay moo gën a gaaw jigéen bu ñàkk am doom moo ci gën a gaaw. diggam ñàkk am doom nu mu tuutee naween na <laughs> ak am moom garaaw ba ci góor ba ci góor sax nga xam ne sa ndox mu mel jaarul yoon wala day faible xam mhm. ne ñu koy boole boo ko naanee nga baxal mhm. di nga am ndox bu jaar yoon maa la wax loolu nenu kaay boobu nga nu mu tuutee nii mhm. wallaahi sa xel bu na màcc neexul sax nakari mbaa ñu ne la ay eh, ñu bind la kiis ñenn kaay nga toj ko rek nga gëmmu naan ko dafa baax nen kaay nen kaay amul lu mu leen faj. léegi moom mu def mu dem yàlla def may bu mu am borom kër toogaat tamit encore ñëwaat mu ne man bi mu amee borom ba léegi comme li nga waxee moom am damay am omb di yàqu man soo defee loolu dina arrêté mm-hmm. parce que mbaax taalalu gën a garab mm-hmm. te ñoom xamuñu ko dangay mm-hmm. gis ku ko defaa ku ko gis sax ku ko def ku ko gis ko sax def ko fenn sànni ko sànni ko ci oh. léegi si naaw si signal signal moom bu ci cofee tuuti mën na la kooku moom yàqu na yàqu la la rawatina rab bi bu ci jëlee tamit aussi noonu. mooy di gis des fois borom moom day toog am na dañuy toog di def lu ñu ëmb rek. du taxaw. Mm-hmm. luy ëmb du taxaw luy ëmb du taxaw. Mm-hmm. rab yi da koy def suñu tamit su ci lekkee da koy def. kon loolu ñu def ci war a bàyyi boo gisee gasal mu suur ko. Mm-hmm. ba nga takk bu mu dëggee daf ko suuf mbalit bi. loolu moo ëpp solo bu dee loolu même di nga am feebar yoo xamante ni. doo gaaw wér. la ay biir yu métti fii. ak feebar yoo xamante ni des fois ngay jeex fii. wala nga jékki-jékki bi bopp di métti fii. yëpp da lay faral di arrivé. parce que léeg-léeg xam nga bopp métti. ñàkk set indi. cat mhm. dina ko indi mhm. comprendre loolu yëpp da ko indi mhm. kon su fekkee loolu tant que daal dafa li nga war rek mën na yàqal doo xam macha allah Alaaji Demba Touré Kanka Moussa moom ngeen di dégg noonu muy leeral dégg ngeen ko secret yi muy wax waaye dégg ni tamit soññi gi nga xam ne mi ngi koy def suñu mbokku plus particulièrement suñu mbokk jigéen ñi yéen ñi nga xamante wax dëgg yàlla yéen a ngi toll ci jànq wax war a toll ci gis ay mbaax ngeen baal ñu ci kàddu gi mais wax moom docteur moom bu bëggee faj faaw mu jaar ci digg ba boobu moom buñ bëggee mu wér moom faaw des koy des koy voilà mi leen xel ni déret boobu ngeen di gis hmm. loo xam ne sax ku ñëpp dañ ko war a xam doonut loo xamante ni sax ñëpp dañ ci war a teg bët kon war maa leen deret jooju di gëbaawoo ci yéen ngeen bàyyiwaat seen xel seen bopp bàyyiwaat xel loolee noonu te xam ne comme lu suñu borom jagleel la mu jóge ci seen jëmm yi te yéen yéenay suñu waajur yéenay suñuy ndey yéenay suñuy jigéen yéenay suñuy soxna yéenay suñuy doom kon war mal leen seen bopp ci lu mel noonu mu doon loo xam ne lu am solo loo ne dégg ngeen ni mu ko waxee lu mën a gàllankoor doomu aadama lu mën a yàqal doomu aadama lu mën a tëj doomu aadama dundam ba faw ba dootul jëriñu alaaji kànka fi ma bëgg ñu jeexalee ko ci suñu jotaayu tey bi rek mooy ci coupe d'Afrique woon duma ci wax waaye mënta ñàkk ndax am na ci ne maa ngi yow dañ koo ak sa sa sa xarit sa doomu ndey docteur Mouhamed Watt ca borom golf borom borom borom borom borom borom HLM Grand Yoff macha allah ba ci jour final bi vidéo ya mu def la mu def ba mu koy def ñu koy filmé ak téléphone am vidéo yëpp maa ngi ak moom te dina am yoo xam ne dinaa ko jël monté ko ci li ngeen ci daj li ngeen ci dund ñaan yi ngeen ci def sacrifice yi ngeen ci def ba yow nga nga daaneel ci nga daaneel ci plateau wu rajo. man moom naroon naa li <laughs> loolu laa bëgg nga wax nga may ma ci tuuti. ak yëg-yëg bi naka la demee woon ak li ngeen ci def lan moo taxul ngeen def ko ci ak lu ngeen ci jublu woon. waaw parce que dañ ko yéene woon Sénégalais yëpp. Mm-hmm. xam nga li ma saa su ne. Mm-hmm. man yow bokk na yàgg nañu bokk rajo yàgg nañu bokk émission. man wax naa lu mel ni sport. du ma ko faral di wax di wax si média. dëgg la. damay def lu may def sa suuf te def ko te yàlla tax na. Mhm. séentu ma ci cent franc. Mhm. xam nga coupe bi bu ñëwee. Mhm. keroog doog naa buntu pale. ba université. c'est ça loolu. toog naa feebar ndax man xaw ma dox. loolu moom fu may dem man tasi laa jëloon mu door. feebar naa ñetti fan yii ndax dama dox fële ba fële. université ba deux heures du matin maa ndax la ñoo ñu ko jaral ak mbégte mm-hmm. parce que xam nga la laay d'accord u taala mm-hmm. doomu aadama mm-hmm. looy wax sa gémmiñ ragalal yàlla xalaatal ñu lay déglu parce que tey ji yàlla mën nal woon saa nga xool nga gis nga xam ne lii soo ko waxee xat lu amee mu nekk lu baax su amul mu nekk safaan ñun diw moo ko xool mm-hmm. kon boobaa xam nga fen mm-hmm. kon soo gisee leer na la sa lii li nga gis gat baaxul mm-hmm. nga xam ne war nga def sarax mu fanko ko defal sarax mu fanko mu ne pat te yàlla tax waaw nga war a xam ne war nga jël sa kurus wala war nga def sa sarax nga saraxe bu baax defal te yàlla tax Mouhamed Wat kooku ko xamul si monde bi mm-hmm. ci internet amul docteur mm-hmm. sama xarit la gis nga jour demi final dama ko woo mm-hmm. ma ne ko moo xam ne mën a xanaa ma ne ko ñu def ay de mu ne ma ma ne ko ma ne laaj na saayit laaj na baatit boo xoolee am benn xeer mag bu mu yoroon noonu ba joxe affaire yi jël kayit bi teg ma woowaat ma ne ma ne ma ne ko ba tey nañ defaat doyul de mu ne ma ma ne ko waaw gis li may bu fekkee amul mm-hmm. yàlla na guddi doon sama guddi ba dem jël poudre bi fédéral bi def li may def mm-hmm. surtout ko si xal bi toog sama kuréel jël sama kuréel secret boobu. Mhm. am na ko tur boobu lu ma ko tayal di parce que moom tamit nit ku ñàkk neel Moussa Ndoye. Mhm. sappoor la mu ngi mu ngi sappoor parcelle. Mhm. waa Bargny la seen kër laa dëkk. ok moom njëkkoon yóbbu. Diourbel boobu maa ngi bari dëkk seen kër am équipe bu fayoon complètement amatul sax équipe lu am kenn ku jël mu bokk si nawetaan c'est pas possible mu yow gis naa fii bari ñi fi dem fi delloo taal la ba doon jeg ay bit dama la doon wax defal ngeen dem star ngeen woo ma jël dal dal dal dal laay jël mm-hmm. dal bu màgget ma mm-hmm. ne jël leen xale bu majooragul mm-hmm. bu gisul bu xamul dara bu toog si dal bi nga def li may def xam nga xancu ki xancu kañ bi ak xancu njigis xam nga ko su ma ko takkee ma def la may def teg ci ndaal dama fàtte géneen daal bi sax su ma defee loolu teg def ko sama néeg <laughs> ku njëkk dugal bii moom da daal Hmm? waaw foo foo ma expliqué ne ñoom ñoo xam sécurité bi dem xale bi jël si dàll bi lu mel ni comme luy bës dàll bi tegaat xale bi toog ñun loolu def nañ ko majeur benn da ñaar ndeysaan xam-xam football dafa am hmm. ñaar sécurité football dafa am ñaar sécurité mbir dafa am ma ne ko xamet hmm. nañu def mënu ma noo gis ma ne ko incha allah dinañ qualifié buñ qualifié mu woo mu ne ah, ma ne nga waxoon boo xoolee premier mi-temps bi ñoom ñëpp ñoo tolloo woon est-ce que jékkuwuñu sax Sénégal non non jékkuwuñu woon sax gaawante mm-hmm. xam nga ñaan des fois su xasee jàppare mm-hmm. day nekk ne sa yaram da lay tayellu mm-hmm. ma wooxu mu ne ma ah pourtant même soxna yaa ngi te wax ne ma léegi de ma ne la ma ne nañ loo gis ñu dem dem dem dem dem dem voilà xam nga Ibrahima Ibrahima kay Ibrahima sagar kër borom bitig bi ah, moom moom depuis avant ñu dema mën ma tuuré kër yaa waxoon dinañ qualifié demi finale bi te finale bi te logique man na ko Ibrahima dina baaxoon na gën a métti wante incha nag du jeexee si football série penalty lay jeex wante incha allah xam naa du ma fekk ma déwul tam mën naa so te si keroog ma daanoo keroog tuuti ma de parce que may def mhm. dama ci tàggu kenn mhm. li ma ci ñaan dama ci tàggu kenn li ma ci def sama mhm. wante man ruus naa toog maanaam lii du am même su ma gisoon saa du am mun naa xool si suuf def li moo def si sarax wala ñaan parce yàlla loo ko ñaan mun na mun na lu fankal bu dee lu bon dem. Mhm. baax mu ñëw. Mhm. des fois xanaa ba équipe dem ba tolloo. Mhm. dem ba à la fin yow nga fekke leer na carrément ndam bi yaa ko moomoon. yàlla nangu ko. kon soo lii du am. yàlla jël nangu xañ kale. jox leen yéen kon yow mii ko kon am yow yaa ruus moo tax chaque fois nit bëgg na sa kaddu mhm. man xam man ma waruma buzz mhm. man fu mu doon war buzz am nga buzz bu yàgg am naa buzz bu yàgg boo ko xam ne pour sa rajo wala télé yàlla moom ma ko jaglal mhm. sama sama bopp def ko si man waaw kon nit looy mënta wax sa gémmiñ mooy rajo mooy télé bu nangu di wax lii kat du am wala di kat du mus a am voilà mhm. loolu soo soo ko waxee loolu pour ko gisee la daal mhm. Mhm. loolu soxor la ak xam-xam soxor la ak ñàkk xam-xam waaw soxor mooy loolu rek xam nga ko soxor moom du xam moo xam naa ko xam du xam ku parce que yàlla suñu borom amul lu bon parce que soxor si mbon la te yàlla amul lu bon kon yow soo xoolee leer na lii nga kat lii moo tax ren ni xamante ni sama mbokk yi ñu bëri ruus nañu de ñu bëri ruus nañu wallaay ndeysaan kon booy wax daal. Mhm. deel wax lu baax. Mhm. booy ñaan deel ñaan lu baax. Mhm. te ñu ngi ñu ngi tamit dëmbul tamit aussi def na am na marché yu war a ñëw sama am na war a ñëw de fan yi. waaw qualification coupe du monde waaw moom loolu laa bëggoon a. loolu tamit ñu ngi ñaan yàlla. ngi ñaan yàlla mu jaar fu mu doon jaaral may ñu qualifié mm-hmm. moom rek moom mun di taal mm-hmm. kenn mënu ko du jàlla mm-hmm. mooy rabbi samawati wal ard ñu ngi koy ñaan fu ñu may ba coupe bi ñëw ba sénégalais mag ñi ndaw ñi ñëpp kontaan ba suñu njiitu réew Macky Sall kontaan yàlla na yàlla defar loolu aussi ba ñu yàlla may ñu qualifié yàlla lay ñaan bi ba ñu mun a demaat ba amaat tamit ku bi ñëwaat. man sax sama kàddu loolu kese de. yàlla moo sant ku ne nga ñaan. Mm-hmm. man li mu wax day am du am déedéet. te am naa droit ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may am ndam. Mm-hmm. ba sama kan sojul lool. dëgg la macha allah <laughs> amati na solo euh, dafa am lu ma lu ñëw ci sama xel mi léegi mu fàttaliku suñu benn jotaay boo xam ne ñu ngi ko defoon fële ci Sacré Cœur. te te te te loolu mi ngi bëgg a ñëwaat muy combat Eumeu Sène Bombardier mm-hmm. bi ko Eumeu Sène di daan di njël roi des arènes bi mm-hmm. te ñoom ñaar ñi ngi war a dajewaat su ma juumul la 27 bi gannaaw anniversaire bu sëñ sëñ Babacar Sy am na loo ma ca waxoon ca booba. est-ce que la nga ma waxoon ca booba loolu nga may waxaat ci bii wala. waaw waaye boobu boobu moom xam nga dama la waxoon si nga dama la waxoon si suuf waaw bii yow bëgg nga wax ci kaw. déedéet xam nga wax naa wax dama la. daal yaakaar dafa foor. wallaay ndeysaan. su ko mooy daan. diw mooy daan. Mhm. Mhm. oh taala découragé nga ñu bëri. wallaay ndeysaan. te aussi am nga akka bu bëri. Mhm. te lor nga ñu bëri. wallaay ndeysaan nga ñu bëri reer mbaa añ mbaa ndékki. kon li ma la sànq rek nit yenn kaddu yi doo ko fësal ci ko waaye di ma ko dee xanaa. waaw tamit nga xam ne tamit waxoon na ma ko. ndeysaan li ma la waxoon si keroog final bi. Mhm. ak demi final bi ma la waxoon tamit la man dama déception ci nit ki tax yaakaaru nit ki wala nga nit ki métti xam nga xam mm-hmm. mm-hmm. am suba sax xamul dëgg la ñu ngi ñëpp toog xamuñu lu xew suba déedéet tey ci guddi gi rek li xew xamuñu wante nag yàlla suñu borom mm-hmm. jagleel na jaamam bi mu toog weetu suñu borom bu dis ko soxlam bu wax soxlam yàlla na andu ci loolu antu kon man su may ñaanal mbër su may ñaanal eh, footballeur wala keneen noonu laa koy doxalee du ma nekk ci télé mhm. mbaa si rajo may wax mhm. diw de du am lii asuma mhm. may yàlla dama ah, yàlla de su ma nee diw du am lii yàlla def loolu mu kooku am taala kooku ku ma gisati na ma wax yaa dul wax dëgg te maa waxul dëgg dëgg la de te bëri na sëriñ su bëri ñu mu daal fan yi passé ci ko defar bëgg boos donc tey boos nit <laughs> gis nit nit yaay am sa personnalité am sa dignité lammin dafa doy waar Mm-hmm. looy génn ba xasee génn rek. Mm-hmm. kon dootul bukk ak. Cheikh Moustapha Dieye loolu lay wax nee na ah, accident bi gën a bon ci accident yi mooy <laughs> naa la ñëpp ñu ngi fay tey gaare Lamine moo leen fay. wallaay ndeysaan tey jii su ma nee diw mooy daan. Mm. diw mooy daan. Mm. yàlla def ki ma waxoon mooy daan. Mm. mu daan. xaaral kooku ku ma gëmati kon ak ku ma waxati dara kon xanaa kooku bëggul waaye léegi man sañ naa laa wax nga ñaanal waa fi ma dëkk mu daan. fi nga dëkk fi nga dëkk waaw l'essentiel la xam nga ndam xam nga ndam ku ne bëgg na ndam yow fi nga dëkk bëgg na ndam mhm. keneen gi bëgg na ndam mhm. man nit day ñëw jàkkaarloo ba yoo xam nga toogam man mhm. ma def li may def ma ne la demal xanaa xamoo am nay bëri en général dem ba ci géew gi luy daan mu ngi si mu ngi si ginnaaw bëri xamuñ loolu ñun bambara lance vers la ñuy jël soo fitakee mu dem rek allahu akbar sa anniversaire am na solo. allahu akbar kon loolu def ci waxal. macha allah man de dañoo fësal ci. ndeysaan parce que man bëgguma ndeysaan xam nga man su ma sañoon. Sénégal ñëpp am jàmm. wallaay ndeysaan parce que lii la rek. Mm-hmm. foo la sport la rek foo rek. Mm-hmm. foo la rek mm-hmm. benn lañ. footballeur yëpp benn lañ mm-hmm. kon soo toogee nga ne diw nangam mooy daan mm-hmm. diw nangam mooy daan mm-hmm. même bu loxo yàlla wane nga gis ngir yàlla wax ko si suuf bu ko ci kaw parce boo ko defee tey soo daanoo rek nga wax lu dul dëgg kooku daanu rek kon dañuy wax ñëpp yem te ñëpp du mës a yem xanaa moom man xanaa pas dama toog man man man man gis léegi nit même bu la léré wóor na li am na boo waxee da yàkkal kee xëyës fa nekk tey mbër taal si laa bi nii wala nii wala wala ko ba keneen ki nii wala la yàlla def kooku dëgg loolu nekkul kaddu bu neex mhm. taala kooku boromam lor na ko découragé na ko mhm. kon nit mun nga toog sa wéet mhm. nga ñaanal ko surko la ñaanal ko yàlla may ko lu mu bëgg mu antu dëgg la su defee nga am si dam nga am si yàlla kon bëgg bës bu tax nga naan damay fësal waaw dëgg la kay man yàlla xam na ne jëm Serigne Baba ak wax si yàlla boo waxuloon lii sax dama ko wax dëgg la dëgg la xam ne nag fi mu ne bi ma ko waxee foofu bu mu passé ñoom ñëpp taxaw si rajo bi dox ñu naan wax dëggal la mm-hmm. yow koy naka jëkki waxoon ko mm-hmm. nga ne ko ren mm-hmm. incha allah coupe bi dina ñëw pale man damay tëdd yàlla war ma gis ma gis ma xam moo tax su ma nanga taxaw ma wax rek carrément ba ñëpp yëkku rek dama ne loolu daf ma leer. wante du ma nangoo taxaw si rajo. wala mhm. si télé ma ne li dina am pam même keroog nga ko foofu si rajo bi. Mhm. waxuma ko si rajo bi de si suuf laa ko. suuf nga ko waxee waxoo ko am ko taxaw am ko taxaw sama naataango taxaw benn cercle ma ne man de li ma gis. Mhm. dama gént naa ko semaine. affaire bi du ñëw ma ne ko yooyu yaa ñeme yàlla <laughs> tey nga ragal sa yàlla nga ragal yàlla. bisoo affaire bi jeexee dafa defur sa si. parce que. te bi ma daanoo bi ma daanoo sama gàllaay ñu doon dagg sax moom bokkoon na bu affaire bi paase ba ma yow ragal naa la yow lu ma la ma tawoo loo wax ma ne ko non c'est que man sama mbir guddi la dama koy woon ma gis ku ma xëy ma balaa ñaari fi ñeenti fu ma teg ci parce que loolu dama ko dama ko ñaanal yàlla ñaan ko si suñu borom ñaan ko Serigne Babacar mu jege ci sa xol balaa balaa balaa kii xam nga kii jëm si yàlla Senghor jaar na fi mhm. Abdoulaye Wade jaar na fi mhm. Abdou Diouf jaar na fi ñëpp bëggoon nañu mhm. keroog bu Macky Sall waxee ndesaan bu mu waxee zóor yi couple laa leen wax taala billaahi wallaahi ba ba gars dem na ba ñibbisi ni sax guddi maa ngi leen ñaan ñaanal laajim sax guddi maa ngi leen di sax suuf maa ngi leen saral ma ci def sama xaalis man hmm. xëjoon na sama entraîneur dama ko def pour yàlla may sa bëgg bëgg la te parce que tey jii yow jël cent franc nga def hmm. sama doom bàyyi tuuri ma jël cent franc def hmm. yàlla du ñu rusloo ñun ñëpp ñëpp ñaan nañ ñaanal yàlla parce que ren Sénégal xanaa ko soxor kese moo yéene loolu Sénégal coupe bi ku soxor nag moo doon wax coupe bi di ñëw. coupe bi di nii kooku moom soxor la jalousie damaa ko wax. dëgg la nit. Mhm. moo soxor. la même bu la leer leeree na sax lii. Mhm. yàlla woon na la lii. Mhm. bu ko nangoo. waaw man du ma ko defal kenn. dëgg la man ma joxoon man wóoruma xaalis. laa wóor ndam. ñëpp am jàmm ak jàmm ñëpp fii parce que yàlla ah. ko yàlla defal ñëpp wax dëgg yàlla li muy wax nii ni mu koy waxee wallahi azim ku dee ak sa bàmmeel nii la ko doon defee ca fa ñu nekkoon bokkoon fa doon fa liggéey ñun ñëpp wax dëgg yàlla bëggul woon kenn mer day am xaalis bu amee xaalis il faut mu may kenn ku ci nekk mu mosal la dara pour nga kontaan ba noppi li muy wax du nelaw guddi léppam ci guddi la c'est lu ñu xam la moo tax baraada du tegee ko ci wetam foo ko fekk xëy na waxtu wi xoj nañu waaye du ñu def rek laaj ko lu dul kaddu yi nga xamante ni mooy doon kaddu yu mujj yi ak tey buñ la doon wax ban message ngay lancé sénégalais yi ak tey ji lan leen may moo xam sarax la wala wala benn ñaan boo xam tey duñ ko may askan parce que émission bi moo laaj loolu ndax solution lañ ñu tëjee ko émission mm, xam nga ñaan bi daal mooy li ma mm. euh, koo gis daal gis mm. nga xam ne doomu adama la comme yow mm-hmm. nga xam ne la comme yow dee ko ñaanal jàmm. ndeysaan. dee ko waxal dëgg. Hmm. dee ko dee ko dee ko dee ko dee ko sangu sutura. Hmm. dee ko sangu sutura. damay su tooñ. dee ko moytu di wax ci moom lu amul. Hmm. taata soo gisee taata dëkk bi nit ñuy taat. jafe-jafe yi bëri yàlla moo ñu woon boppam. xam nga fi nit ñi war ragal a yàlla. taal atum atum ren bi fii ba deux ans yi passé. man deux ans yi passé yëpp. taala ñaata ndomb tànk ñaata kilifa yàlla suñu borom denc lamp leen dem wuy suñu borom loolu kese war na yee nit mm-hmm. nga xam ne ñooñu fu ñuy ñoo la ëpp xam-xam mm-hmm. ñoo la ëpp saayir mm-hmm. ñoo la ëpp baatim lakku nañu yow bis dinañu foofu ngay jaar gisa wax naa la kuy xalaat bàmmeel ñetti fan bàmmeel mbugal bàmmeel lëndamaay bàmmeel taala di nga yéene ñëpp adduna bi foo ñu yéenalante jàmm mm-hmm. foo ñu waxante dëgg surtout foo ñu bañ tooñalante mm-hmm. foo ñu bañ xawante sutura wante mm-hmm. jamono bi man li ma si gis dama tiit yéemu si yàlla waaru si yàlla man de sañu ma ko tooñ sama morom doomu aadama or ko mu deful mbaa hmm. xawi sudaram mbaa hmm. yéene ko safaan kon su ma ko naree def yàlla nañu la su borom alal masi bu wala fàttali kon foo nit ñi ñaanalante hmm. jaamu bëggante soppante yéenante jàmm ak salaam di waxante dëgg surtout loolu surtout tamit di waxante dëgg daal parce que fen day yëngal aras kon nit lay fen lu la wóorul xaw ma loo xamul xaw ma loo yéene sa bopp yéene ko sa morom gis nga bu ñu bëggante suñu biir di waxante dëgg bañ a ŋaññante bañ a saagante bañ a xasante taala mm-hmm. jàmm rek parce que boo yéene ñu jàmm nga am jàmm moo mm-hmm. boo yéene ñu safaan nga am safaan man nit yoo xam nga ma ñu mm-hmm. suma waxoon lu ma nakkari lu ma kii sax lu ma tuuse damay jàpp julli parce que nit soo tooñee nga def jàpp julli balaa njàpp bi yow woo sa yaram wala sa loxo wala sa kanam billaahi wala yàlla attale <laughs> yàlla la day attale balaa ngay sax kon nit ñi nañu góorgóorlu macha bañ a tooñ bañ a wax lu dul dëgg mm-hmm. di bañ a sos bañ mm-hmm. yéenalante safaan yéenante koy yéene nit mu kopp sa kaw mm-hmm. parce que koo gis boo ko ndeyam mboote loo gis bu ko rawaanam di dimbali loolu kese moo ñu tàddal loolu moom su nit saxoo si loolu taal allahumma loo ñaan loo bëgg yàlla dara koy incha allah rabbi parce que loolu nit ku baax loolu kese nga war a mel dëgg la yéen ñëpp jàmm loo bëgg sa bopp bëggul ku ne mhm. bëgg ñu def la bëgg def nit bul wax lu wóorul mhm. waaw boo defee rek jàmm na ngay am incha allahu rabbi jërëjëf alaaji Demba Touré Kanka Moussa moom lañ seet si woon tey fii ci Thiès dégg ngeen ko li mu wax te koo xool xam ne tam kii ngeen jàkkaarloo xam ni nitu jàmm la nitu salaam la nit ku baax nit ku bëgg lu baax ni muy baax baax baax li muy bëgg bëgg jàmm li muy bëgg bëgg salaam li muy mën a joxe alalam tamit noonu la àndeek ay bagage yoo xam ne moom boo ko tooñee ba mu tàng fii mm-hmm. <laughs> mar Demba Touré macha allah rabbi sama waay la sama xarit la damaa sañ ci moom lii nag moo tax waaw dañoo yàgg dañoo xamante lu bëree bëri bëri na ci ñoo xamante ni buñ ñu gisee tey ñu toog mën nañoo bañ a xam mais am na ci loo xamante ni démb la démb waral ñu naan tey te bu tey neexee démb ko waral du yàgg lu ne dëgg la wax naa la man dam nangu naa bool yi mm. nangu naa <laughs> kaddu yu mujj yi léegi lan lay doon ñu jeexalee ko jotaay bi ndax mu ngi guddi kaddu yu mujj mm-hmm. li ma la sant mm-hmm. soxla waaw boobu danañ ko après am nañ xam nga kaddu mujj dama bëgg wax rek mooy nit na moytu ba ñu la un deux trois rek te naan da ngay tontu day yàqal nit de tàddal parce que nit yàlla dafa ànd ak aji muñkat yi ku du muñ ku du munu muñ doo am dara nit foo ngay muñ kantaa ñu ne la man sama yaay moom moo xam lu balaa muy balaa muy génn àdduna moom la xam sa papa xamoo nee na ma bu la nit yéenee jàmm mm-hmm. yéene ko jàmm mm-hmm. bu ne nit yéenee safaan yéene ko jàmm ma ngaa lu tax yaay mu ne nit su la yéenee jàmm mm-hmm. ngeen bokk jàmm su la yéenee safaan ngeen bokk safaan

def nii kii ragaluma ko kii lijjantuma ko déedéet même bu dul dara xalaatal nit ñu baax dañ lay bàyyi xel mm-hmm. nit ñu baax dañ lay déglu gis nit nga xam bàcc moo dàq lu mhm. nga fayantu si suuf fayantu suuf am na de. macha allah dëgg la fayantu si suuf nit mën nga ko duma si suuf saa mu xam. Mhm. waaw. wante mhm. on dirait nga naan damay tontu nii nii da lay sa kàddu mu ne diw dee wax na lii diw ak li ma ko tegoon. ak su ma ko yaakaar moom moo tax tuuti mes waral wax bu ñaaw. wax lu bon. tontonte yenn yi. xaw ma loo mënut a wax nag. dama lay jéggante yàlla parce que saala seetaan day tax nit di wax lu mu warul wax. seetaan mu tax nit dafa dañuy ñaan yàlla saa suñu yàlla muccoon ñu si loolu amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf Alaaji Kanka Moussa Demba Touré jërëjëf téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a baaxoo di suivre seen émission jotaayu xam-xam bi nga xam ne mooy faj sa jàngoro fii ci biir Salam Vision mbégte lañ am tey li ko sabab wax naa leen ko ci ba ñuy door fii ñu ñëw tey di Thiès benn dëkk ñaari gaar seet si fii ki nga xamante ni day suñu xarit di suñu wëllëre waaye doon itam koo xam ne àdduna wërngal këpp xam na ko à travers média bi nga xam ne mooy média sénégalaise bi ci wàllu gisaane muy wàllu seet ci wàllu ñaan ci wàllu faj ci wàllu yi tamit taxawu doomu aadama ci lépp loo xamante ni itteewoo na ko ba tax tey mu jaral ñu ñu déplacé wu jógee Ndakaaru ñëw ba Thiès doon ko seet si dégg ngeen lañ fi bokk waxtaane lii mu ñaan itam te jeexale ko jotaay bi rek mooy yal na réew mi am jàmm yal na ñëpp am jàmm yal na ñëpp mucc yal na ñëpp kenn ku ci nekk rek dund ni nga bëgg a dundee ci kàttanu suñu borom ndax yàlla mii dul jeexal dara am lépp sañ lépp mën lépp yal na yàlla taxaw am mbooleem njabootam gépp defal ñëpp taw feex jox leen dig daje incha allahu rabbi taala ci beneen jotaay ak seen émission jotaayu xam-xam bi nga xam ne mooy faj sa jàngoro jërë ngeen jëf wax ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla doon li noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi buur ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi boru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaw